ñetti butéelu ndox ak juróomi paqueti mbiskit ñoom ñoo xam lu bon loolu parce que ñoom ñoo xamul teraanga ñoo ko xam ñoom ñoo xam loolu parce que xamuñu teraanga xam nga kuy dem ci xalif général di ko nuyoo deux cent mille wala deux cent cinquante mille kooku xamul teraanga kon duma du ma épanché wu sax ci loolu mais li wóor rek mooy damay invité la classe politique ngalawaay soyons plus responsables j'invite la classe politique à épargner l'armée ci suñuy wax nañu coppet armée génne ko ci suñuy kasaw kasaw l'armée c'est du sérieux armée sérieux na sérieux goo xam ne ba assemblée nationale budget armée kenn du ko waxtaan budget armée kenn du ci joxe sa xalaat dañuy ñëw voté ko daal di avancé et sacralité boobu ñu jox suñu armée maa ngi invité tous ceux qui sont la classe politique ñu def ko mais di wax président de la république comme seen waa jooju ñuy wax musallimi waxuma musallimi de musallimi ki ñuy wax musallimi ngalawaay na góor góorgóorlu ba lu jëm ci wàllu secret d'état ñu defal ko training xamal ko ne njiit day am bàmmeelu biir ñu wax ko ne ko njiit day xam ba ca njiit du lu mu xam teg ko ci place publique dégg naa sax muy wax naan dafa am général boo xam ne rapport def ko épinglé c'est mm-hmm. archi faux amul amul benn rapport mm-hmm. bu épinglé benn général fii ci Sénégal mm-hmm. yegg na sax ba ci wax naan dégg naa coowal 1000 milliards yi boobu boobu mu ma fekk maa ngi ci maa ngi ci biir affaire bi. compte 1000 milliards. xam nga xam nga boo boo nekkee nit ku inculte mooy nit ku amul xam-xam. boo waxee waxi dof dof yi dof yi ak xar yi ànd ak yow. du ñu am capacité de discernement. dama lay wax ne la dama leen di leeral ne. xam nga man dama yëngu ci wàllu finance. finance. Mm-hmm. ah banque xaalis biy nekk ci banque bi xaalis biy nekk ci coffre banque ba ci banque yi ngeen di gis ci koñ bi xaalis biy nekk ci coffre bi. Mm-hmm. assurance moo koy assure assurance du nangu. yenn montant yi amul benn banque ci Sénégal boo xam ne. am na coffre. coffre bu mun a accueillir trente milliards amul. donc xaalis yi nekk ci banque yi ci Sénégal yépp boo ko dajale woon mënta mat mille milliards. c'est pas possible. waa léegi dégg sax comme bu ñu waxee waxi dof. dafa am seen yeneen xar yoo xam ne dañuy génn di ko leeral naan oui yëf bi xaalis bi mun naa nekk à l'étranger déglu leen aba man du bëgg ñu ñuy lëndëmal compte bancaire dafa sacre même bu nekkee bitim réew boo bëggee am information ci compte bancaire il faut mu am li ñuy wax commission rogatoire mos ngeen fi dégg commission rogatoire bi ñu fi toogee léegi da ngay bind juge bu nekk ci réew ma nga ne xaalis bi fa la nekk juge boobu mooy tàmbali liggéey bi dafi gëstu wax la li nekk ci xaalis boobu est-ce que da ngeen ko dégg fenn waaye waaye waay waa ji wax waxu mille milliards ñun fu ne ñu nga fay dem di lebi foo gis mille milliards wax ñu ñun ñu ànd ak yow dem jëli ko xanaa wax ji day jeex kon wax naa ko léegi gis nga Ousmane Sonko. il faut mu respecter sénégalais te bu yeboo mu xam ne pexe ma fexeel ma man.